asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg lool ci ànd ko wér ci njiitul sëriñ Abdou Latif Jenn xalifa sëriñ Issa Jenn ci kilifteefu sëriñ bu Jenn xalifab seriñ Baara Jenn sëriñ Sidi moom sëriñ Naar Jenn mooy am mbégte dellusiwaat di sant mbooleem njabootu sëriñ Touba Xaadimu Rasuul gépp di feddliwaat yaakaaram ci sëriñ Touba Xaadimu Rasuul di soññi nag bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ak xarit yi ak wëlëre yi ci màggal gi nga xam xamante ne bii at mu jot ñu def ko di ci ñaanal waajuram sëriñam di sëriñ naar jenn moom sëriñ baara jenn sëñ Sidi nag nee na màggal googu ren jàpp nañ ko altine fukki fan ak juróom ci weeru kori dëppoo ak fukki fan ak juróom benn ci weeru tubaab di ko amale nag ci péncum jenne lépp bëccëg lay doon sëriñ Sidi nag nee mi ngi koy yëgal mbooleem koo xamante ne bii xarit nga baa soppe nga baa wëlëre nga rawatina nag ñi nga xam ne dañoo wax aslamtu nafsi ci ci sëriñ naar jenn moo xam muy rakk wala taalibe wala muy soppe wala muy xarit wala muy wëlëre comme ci man di doon sëriñ Sidi nee ne mi ngi lay yëgal bis boobu di ko yëgal nag mbooleem ñi mu bokkal Serigne Touba ñëpp nag di seexi Serigne Touba yi képp koo xam ne sa maam daje woon na ak Serigne Issa Dieng ci kër Serigne Touba wala sa sa wayjur daje woon ak Serigne Bara Dieng ci kër Serigne Touba mi ngi lay yëgal boobu bis boobu te di la ko fàttali di ko yëgal it nag mbooleem jëwriñi kër gi bàyyiwul jenn jëwriñ di ko yëgal mbooleem njabootu Serigne Issa Dieng gépp nag di ñaan képp koo xamante ne bii ñëw nga ci bis boobu nga xam ne mooy doon bisub Serigne Naar Dieng war a doon altine fukki fan ak juróom ci weeru koor yi dëpp ak fukki fan ak juróom benn ci weeru tubaab pencum jenne sëriñ si di neen mi ngi ñaan ku fa teew yàlla mi man a far ay bàkkaar yàlla na far say bàkkaar te duutu la ko bindal te bindal la tuyaaba yoo xam ne duutu jeex àdduna ak alaaxira wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.